lii jëf jëfi ci réew mi jamono jile moo di bàyyi gi Kouthia bàyyi ci TFM télévision Futur Média moom artiste comédien bi lee Samba Sine alias Kouthia bàyyi na TFM laata muy bàyyi dëgg nañu audio yoo xam ne Kouthia ma ngay àddu ca TFM jëf ji nga xam ne jëf na ko fa liggéey bu réy ba mu fa liggéey ak itamit nag fi nga xam ne tollal na fa TFM jamono jile lu toll ci fukki at goo xam ne jot na koo toog ci télévision boobale muy télévision Futur Média dafa liggéey liggéey bu réy fu ne mu dem leen ko ci biir télé boobale moom di Kouthia am na ci boo xam ne ma ngay li nga xam ne moom moo di ak fa def naa fa lu ci nekk taatu nen kott laa fa deful waaye nag lu nekk def naa ko lu nekk jéem naa ko fa dem sax ba ay rongoñam tàmbali di bas-basi ci ay gëtam di wàcc ci dënam moom Kouthia muy sër di jooy ndax li mu doon wax daf koo sore loolu dafa àggoon ci biir xolam moom it di Samba Sine alias Kouthia ci kàddoom yi nga xam ne moom la joto yëkkati daal di koy tontu ñi nga xam ne ay ustaas lañu nekk fii ci réew mi te jamonoy koor gi di wax loo i wax mu i fo ustaas yi gën a xam naka la ñuy def ba waaraate loolu nag du dëgg du yoon plateau télévision yi bu koor jotee sax xanaa ñu mën noo dimbali mën faa teg oustaz yoo xam ne dañuy wax lu jëm ci diine ji di yee askan bi ak di leen xamal ana muy dëgg-dëgg seen diine ak naka lañ ko war a doxalee genre kaddu yooyee mu wax moom Kouthia tax na mu xat biir TFM télévision Futur Média dafa mel ni kaddu yooyee dañ koo jël jëmale ko ci oustaz Modou Fall mi nga xam ne jot yi nga xam ne moom lañ ko defal gaay di ci toog ci wetu oustaz Modou Fall tax na Kouthia biir TFM télévision Futur amatu fa woon benn cër boo xam ne moom la fa am ñuy jéema a sabote émission ak la ca aju tax na mu daal di jékki-jékki ne léegi nag jeex na maa ngi dem sama yoon te dem gi may dem dootuma delli siwaat ki gëmul ak tamam moomoo di dërëm artiste comédien bi nga xam ne moo Kouthia ñu daan ànd moom it di dërëm wax na ci démission Kouthia bi nee na man gëmuma ko tey gëmuma ko ëllëg ndax Kouthia mooy borom TFM Kouthia actionnaire la fa ku nit la goo xam ne TFM ci boppam moo ko bëgg moom mu bëgg TFM moom ci boppam moo wax ci kàddu yi boppam mu dugg ci samay nopp noppi bopp man mii di dërëm mu ne ma TFM du ma fa mës a bàyyi du ma fa mës a quitté kon nag sénégalais lépp luñ ci mën a wax itam man gëmuma ko ba xanaa ma teg ci sama gët dem ba gis ci lu ma leer nañ ci laay soog a gëm ni Kouthia dem na Kouthia nag nit ku baax la nit gënu ko ci kaw suuf man mii di dërëm fu ma dajeek moom dama koy wàcce ci xaalis dama naan ko indil pass yu mu yëkkati jox ma nit la koo xam ne ku ubbiku ku yaatu la ku rafet xol la nit la ko a média ma maay booy boo demee mbaa yi fii baax war a bàyyi jamono ji la dangaa waroon a toog xeex lañu xeex bi ba ñu wàcc fi président Abdoulaye Wade nga soog a dem Ahmed Aïdara ne ko yow Macky Sall dafa mel ni danga maa umpale fee ma jëm ne su ma fa toogee ñetti fan di tàmbalee yëg yëf yi di tàmbalee yëg ni jugaat naa naata jug gi ma a xam boo demaatee feneen laata yi juróom benn weer kott mooy li ci des ba tax na su ma nag dangay toogandoo ak ñun xeexandoo ak ñun xeex bi ba xeex bi jeex tàkk Ahmed Aïdara ne ko nag may ma ñetti fan fa ma jëm su boobaa di nga kontaan di nga yëg ni liggéey na tey tamit nag jamono jooju bi ma defee ñaari semaine ci fi nga xam ne fa laa jëm foofee laa defee liggéey bu rëy tey jële président Macky Sall moomee moo taxaw naan ma Ahmed Aïdara nii nga koy koy defee du nii nii la buuba nduur xamal na askan wi ak waa bi nga xam ne moom la ñuy coow jamono ji le dañoo a leeral yëf yi ba mu leer nañ askan bi a dañoo war a teg ci seeni loxo lu leer loo xam ne duñ fi nekk di wëri ak a jëfi leneen maanaam ci gàttal dañoo war a wax lu leer nañ ñoom njiiti ñoom kilifa yi dañoo war a jëf jëfi kilifa tey wax waxi kilifa te dox doxi kilifa ndax élection yii ñu jëm yëfi askan la kon nag nañu ko delloo ci penc meek waa penc mi moom it di buuba nduur wax na ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ak réew mi ñoom ñëpp àdduna ci seen mbir xamal leen ni leen nag askan bi lépp lu ngeen leen di wax na doon lu leer nañ bu leen indi ay jiixi jaaxa ci xelu askan bi mbaa ngeen dugal ci loo xam ne dafay tax nit ñi tagatémbe du ñu dem ngaay te du ñu dikk ci nga ma dem ci Viviane mi nga xam ne ma ngay njaay cekke Pape Cheikh Diallo Pape Cheikh Diallo ci weeru koor wi ñu génn benn auditrice moo daal di dugg ci télévision Futur Média ne ko Pape Cheikh Diallo maa ngi lay woowee ba ñandul Pape Cheikh naan ko ama ñandu di ko tooñ ak di ko def moom it Viviane gis nañ ko ci benn sinap boo xam ne ma nga cay njaay cekke Pape Cheikh Diallo naan ko man Pape Cheikh danga maa jaaxal am na sa benn auditrice boo xam ne jot naa dugg Njaay cekk na ko ba xolam sedd guy ki Njaay tekk aadamoo moo di Wally Ballago Seck Wally Ballago Seck mi nga xam ne ma nga ca Italiano ci benn concert boo xam ne war na ko faa amal niki le 14 bii ñu nekk tey Wally Seck dafa ni cëpp biir Italiano daje ak aadamo moom ak aadamoo ñu daal taxaw mu naan ko aadamoo première fois ma gis la gët ak gët comme nag daje nañu maag yow comme nag gise nañu maak yow léegi nag war ngaa mën a wàññi saaga yi moom it di Adamo ci la daal di taxaw tagg Waly Ballago Seck xamal ko ne ko sama waaye ngi nii sama nit a ngi nii sama waykat mu ngi nii sama idole mu ngi nii sama lépp mu ngi nii nit ma bàyyiloo ma bàyyi ko lépp ma def loo itam ma ma def ko moom na cofeelam ak fi mu toll ci Waly Ballago Seck Waly yi tamit nag gis nañu ko muy àddu ci kawam naan ko Adamo mu ngi nii sama nit sama lépp waaye nag gannaaw ba gis nga ma gët ak gët xanaa léegi nag yëf yi mën naa jeex mën ngaa bàyyi ndi saaga yi ak la ca aju bu loolu weesoo nag na ñëpp xam ne tey la tey Wally Ballago Seck ci Italiano bu ko kenn wuute daw leen gaaw Feeling Dakar dana wane lépp toog leen rek ñu wan leen dafay xew li ci des nag mooy Ballon door fii ci Sénégal fii la war a ñëw Ballon door bi nga xam ne moom la ñuy xëccoo Sadio ko moom saajo moo moom Ballon door bi na ko ñëpp waxandoo jërë ngeen jëf ba altine ak jàmm Le Zénith de Paris déroule pour El Hadji Baba Maal. La Baba Maal, le dit vocal du Dandé Légnol. 37e anniversaire du Dandé Légnol à Paris. Et eh oui, 1985-2022, le Dandé Légnol de service du développement social, économique et culturel du peuple africain. Peuple Après le lancement en fanfare, les 12 et 13 mars à Nouakchott, Baba Mal et son orchestre font cap sur Paris pour célébrer la diaspora africaine le mai au Zénith de Paris. concert de Dakar à Djibouti. Baba Maal de revisiter ce riche patrimoine la convivialité et dans l'unité du peuple africain. El Hadji Baba mai. Le concert de l'année le 14 mai à Brescia fexe na ba andil lu gën a yomb ci nu ngeen mën a amee bi yi moo di plus de mille neuf cent points de vente sur l' ensemble du territoire italian yomb na demal ci site bi nga xam ne moo di walisec tiret milan point com nga choisir viva ticket ba choisir viva ticket danga gis fu ñu la defal benn panier gis ñu bindal la trova rivenditore maanaam trouver un revendeur soo fi cliquer da gis mu bindal la sa région sa province boo cliquer ci région cliquer province bi nga nekk cliquer du cerca maanaam chercher daf lay jox numéro de téléphone numéro de via adresse ci fi nga nekk soo xamul gis nga map bi boo xamul map bi am na numéro téléphone boo ci wootee foo mënti nekk su le territoire italien soo wootee ci numéro téléphone ci fi nga nekk daf lay wax ñëwal bërëb sàngam boo ñëwee da nga gis Viva Ticket da nga jënd sa ticket physiquement def sa poche bu jour ba nga ñëw ci sa soirée ma préciser que ne point de vente yooyu normal rek la ñuy jaay du ñu jaay billet VIP képp koo xam ni soxla na billet VIP dafay woote ñu réserver ko billet VIP wala ci revendeur yi nga xam ne ñoom ñoo ko yor di wër ci Italie wala di wër ci Europe. su ngeen ko gisee ci site bi nag billet yi ñuy jaay nii les offres sont limitées. waxtu ni nga ko déggee. del